ku jóg ba ni da ngay dugg. Hmm. ci langum politique bi am na lu tax nga ciy dugg. effectivement ci dugg noonu ci loxo neen donc euh, tu viens pour amener un changement. Hmm. par exemple nous suñu politique duñ ko centraliser ci civisme ak citoyenneté comment on fait pour amener un nouveau modèle de citoyenneté comme aujourd'hui on a constaté l'échec des politiques politiciennes aujourd'hui tey réew mi fi mu toll ñoom ñoo ko fi andi donc il faudrait que ñu réfléchir repenser la configuration politique hmm. su fekkee bëgg nañ donc ñu ñun ci loolu la ñu positionné wu tey mooy naka la ñuy fexe ba am ay xale ay kàngam mu am un majordome bu bu bu bu bu diriger loolu ba pare teg les bonnes personnes aux bonnes places et que ñu mën a doxal réew mi parce que foofu nañ toll parce que aujourd'hui soxlootul ñuy def la liste de ce qui ne va pas au Sénégal la liste elle est excessivement longue il y a beaucoup de problèmes dans la santé dans l'agriculture dans la pêche aujourd'hui au niveau de l'électricité au niveau de l'énergie il y euh, les gens amatuñ lu lekk ba pare ils se retrouvent à payer des factures euh, colossales euh, woyofal ñëpp xam nañu si nekk aujourd'hui tu fais euh, tu tu as 5000 de woyofal euh, mu lay jox ay kilowatt heure yu différent du jour au lendemain. Mm. donc il y a de problème yoo xam ne tey askan wi dañu war a dajaloo citoyens yi seen bopp dañu war a récupérer waat li nga xam ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp mais maanaam nguur gi doxal ko. foofu nañ toll tey euh,